xalaatoo ne président jot na mu nekk en retrait mu bàyyi seen candidat bi mu nekk ci kanam parce que président aujourd'hui c'est une personnalité politique achevée bu nekkee continuer tournée mi il va faire une autre tournée en décembre il laisse pas de l'espace et de la place au candidat parce que tout le monde a les yeux rivés sur Macky et dans votre parti tout le monde se croit obligé devant Macky Sall de lui dire ñun bu ñu toppee Amadou yow yaa tax waaw mais xalaata na loolu day desservir seen candidat mais c'est moins des c'est moins des critiques au président que euh, personnalité Amadou Ba. c'est-à-dire ñun dañu am candidat boo xam ne il est pétri de qualité macha allah euh, nit ku baax la euh, nit ku jullite la nit ku am yërmande la mais surtout nit ku am respect la ci nit ñi ñun ñëpp ñu noonu ah. ñun on a parmi nous ñoo xam ne xeex rek lañu man dóorante rek la ñu man politique nag y tout le monde. mais Amadou c'est ne décrit pas Amadou Ba comme un ange de. un ange du yegsi fi mu yegsi fii. ne le décrit comme un ange. xam nga il est politique. et très politique même. xam nga may nga Maymuna euh, dafa am yoo xam ni yàlla la. waaw mais. Euh, maintenant les choses ne lui ne lui sont pas tombées du ouais, ciel mais pour ñëw ci sa question. ñun suñu candidat yàlla dafa def ne au fonctionnaire la c'est un commis de l'État et dafa am ñaari valeur yoo xam ne c'est central chez un agent publique malheureusement mais chez un agent public de son niveau mooy benn la subordination mooy sa autorité nga nangul ko Euh, ñaare bi mooy la loyauté Amadou boo seetloo loolu rek lay wax. mais est-ce que le président moo ko war a mettre à l'aise aussi. déedéet. si. déedéet Amadou dafa jàpp ne tant président de la république mooy président de la république moom place mooy 3 mètres ci ginnaaw. mais sauf qu'il va à une présidentielle. maintenant il a besoin d'être devant. xam nga yaa ngi may fekk si. non fekk su ma la xam nga yaa ngi may fekk si li nga wax. dama ne on va à une présidentielle président moo war a def recul. il doit être devant. teg candidat bi ci kanam bàyyi ko mu exploser. c'est pas le président qui gêne le premier ministre. Euh, dama jàpp ne et encore une fois moi je suis en train de voir une mutation chez Amadou. je sais qu'Amadou euh, est élu au fait Amadou da wax dadul wax da dul wax en général bu la expliquer nga comprendre lii moo tax lii lii moo tax lii lii moo tax lii moo tax lii mais essentiellement euh, dama euh, je suis en train de voir loo xam ne moo taxoon ma wax et moom laa bëggoon ci Amadou ndax bëgg amadu gagné parce que mooy sunu candidat mooy sunu yaakaar mooy mu def une mutation du haut fonctionnaire qu'il est vers un homme politique qu'il doit être et qu'il doit rester parce que bu buggee yore nguur ba noppi téye ko il faut mu def ce mouvement cette mutation du ñëpp ñoo koy réussir du ñëpp ñoo koy réussir Maïmouna mais euh, oui moi je pense que il doit s'affirmer davantage aux côtés du président de la République. Mais du ma du ma révéler quand c'est un fonctionnaire quand, quand il a les qualités d'un fonctionnaire loyal respectueux de l'ordre hiérarchique on est à deux mois de l'élection président moo ko war a non dama ne président président tëjalu ko parce que tant que président mu ngi teew. tëjalu ko yoon peut-être que lui du du ko du ko alors que aujourd'hui il doit être devant aujourd'hui on ne devrait parler que Amadou Ba et on va garder beaucoup de nostalgie pour Macky Sall bien ah. sûr ñu parler que Amadou Ba dina jafe de <laughs> ah seen camp ñu seen camp man keroog je m'attendais à Fatick à Kaffrine que ku wax ci Macky Sall 60 pour cent 40 pour cent yi nga jagleel ko Amadou tagg ko mais seen gars ñemewuñu gëmuñu yàlla. waaw déedéet bu wax loolu. mais si déedéet ah ñëwee ñu ngay wax wax <laughs> non non non non non. je vais avoir tellement de no après. non non non c'est-à-dire que. Euh, da ngay gis ku wax ba jeexal du tudd premier ministre. waaw alors que aujourd'hui yéen ngeen dem ci zone yoo xam ne premier ministre daanu fa daan dem mais premier mi premier ministre lañu waroon wax. je m'attendais aussi à ce que président introniser le premier ministre. ne leen ah seen candidat baa ngi nii. am na qualité yi mel na nii. woteel leen ko moom laa fi nar a bàyyi. moom moo nar jël sama lekk. waaw dafa am relation. mais loolu gisuma ko dafa am relation ak militant Macky ak militant ci Ablaye Wade rek laa ko gisoon ak ay militant c'est-à-dire que c'est des c'est un rapport fusionnel entre Macky et ses militants bi mu demee Fatick justement boo seetloo ñi dafay tudd nit ne dooroon nañu bopp bi xaroon nañ bopp bi ndax man tudd nit. ne jàppoon nañ ko kaso ndax man euh, cest à relation yooyu moom moo naxaree defeer et je crois que même su ki nekkatul président. c'est le président qui a la clé de. yaa ngi may rejoindre. su même su nekkatul président loolu dina continuer mais loolu Amadou Ba xam na ko dañuy doog a suñu candidat et ce que j'ai di malheureusement qui a été mal compris ci loolu lay participer euh, quand tu fais de la team building. dafa am phase boo xam ne ci ngay choisir dafa am phase boo xam ne ci lañu ci lay xew lu nuy woowee storming c'est-à-dire que il faut mu am période boo xam ne. de turbulence de turbulence après mu am phase boo xam ne mooy la phase de norming ñu réajuster ku ne xam sa place. ñu taxaw dem mais loolu bala muy am dafay am des mois moment de flottement mante ñàkk léegi bi ci mujje phase bi ci mujje mooy la phase de performing et nous croyons que président ak candidat bi dinañu réussir une symbiose et on a fait des propositions pour ça pour que ñu xam pendant la campagne fan la président di insister fan la candidat bi di insister fan la ñu war a séparer. les deux les deux ak fan la ñu war a daje ñoom ñaar. merci beaucoup on est en train de travailler sur ça ça va sortir et je pense qu'on va y arriver. Merci maintenant pendant qu'on y arrive il faut léeg-léeg mu am parole yu jàdd gauche <laughs> parole yu jàdd droite mais il faut euh, assumer et accepter de mon point de vue hein, et je crois que loolu accepter nañ ma ko une certaine liberté de ton man philosophe là de formation. c'est un grand défaut chez moi. merci euh, peut-être que vous allez être candidat euh, de campagne de de Amadou non non non non non. non. ah. <laughs> non ah. intéresse pas. non te ngaa bañ a gaaw wax. non non non. d'accord. merci beaucoup. non mais mais su ma laajee. su mm. bëgg soxlaa sama xalaat dinaa ko ko jox.